mbégte gi li ko lal mooy saa suñu duggee ci groupe bi rek daf ñuy fàttali euh, Alaaji Sidi Kabi Niass nga xam ne fan yi rek Sénégal yëpp màggal na ko euh, muy koo xam ne taxawaayam ci réew mi ak ci démocratie ak ci euh, promotion des libertés ak ci l'accès à l'information libre kenn dootu ko wax Sénégalais yi fekk naa pionnier ñu daan ñëw di ko fekk ci bureau bi euh, daje yi fi daan daje defe naa oustaz rek ak li des ci seede boo xam ne daan nañu daje fii di waxtaan ci réew mi waxtaan ci loo xam ne njëriñ ci même euh, lu mel ni moo taxoon ma ñëw fi mooy événement mars 2021 ak li ci xewoon ba ñu dagg signal Walfadjri ñu ñëwoon ma saw leen bokk euh, euh, li nga xam ni injustice bu ñu leen teg te Sénégal yëpp nangu te du du woon gulet ndax bu fi Sidy Lamine di nekk ci wax rajo télé bi rajo bi ñu ne gis nañ ko fi da ci ay agression physique te dara warul koon luñ euh, groupe bi muy ligne éditoriale boo xam ne man ni dama ko wax te féete taxul moo ko waaye képp ku nekkul ci dëgg ligne bi dina la gêner dina la gêner ndax defu leen lu leeral askan bi li nga xam ne ay tolof tolof la ak ay ñaawteef yu am ci biir réew mi ci kaw ni ñu yore réew mi parce que dafa am solo dañoo toll ci jamono joo xam ne euh, avec euh, la démocratisation médiatique mhm. li commencé yàqu ci média bëri na te li ko andi mooy au lieu ñu wax lii farata réew mi ñu ngi topp ci fait divers vie privée ak yu demee noonu mhm. Walfadjri ci ñooñu waaye li nga xam ne moom lañu ñëpp ñëpp bokk muy l' espace public le bien public nga xam ne ci débat yi ci loolu la war a def ne am nu ñu yoree réew mi ndax mbay mi dox na ndax càmm bi dox na ndax njàng bi dox na ndax infrastructure yi baax na ak ndax li ñuy dugal ci koppar méngoo nag li ñuy li ñu livré ak foo fu sénégalais am jàmbat bëgg koo jooy jooy baatam eggul ngeen yeggale ko ba ñëpp xam ni fii euh, métit am na fi dafa loolu mooy li ëpp solo ci li ñuy xaar ci média yi te war ko suñu tànk yooyu ba tax yàgg ngeen dund lu mel bi mu amee bi mu mujjee am en tout cas ñaari at ci gannaaw ñëwoon nañu masawu leen jàppoon ni nag loolu dina fi géej wala dina fi dakk waaye euh, dafa am loo xam ne ci jikko la te jikko nag ak boroom moo tax bertu ñu démb bi ñu ne euh, dagg nañu signalu Walfadjri su ñu ñëwee fii nag wax ji toujours day xaw a jafe. parce que am na looy waxee rek ñu ne groupe bi dafa ànd ak moom te gëm naa ni bu doon maa maa maa maa toog tey ci fii jëlee décision te jël décision yu méngoowul ak intérêt général Walfadjri koy jëkk a te tey ñii ñii coppe signal Walfadjri démb bi ñu nekk opposition même taxawaay bi la Walfadjri amoon ci ñi yoroon dara soppi donc ñëw ñu fi parce que dañoo euh, dañoo am accointance ak Walfadjri ñëw ñu fi parce que Walfadjri daf ñuy waxal li ko firndeel mooy daaw jéeg bi ñu coupé si ñëw itam defe naa du woon rek Walfadjri ñëw nañu massa Walfadjri dem nañu euh, groupe D-Media euh, massawu leen waaye dem nañu sax ba groupe euh, GFM nga xam ne am na lenn ci xale yu daloon ci seen Euh, rajo defe na massawu leen ñoom it kon ku mu munti dal rek dafa mel ni ñëpp la dal suñ fii teew teewuñu fi parce que dañuy fàttaloo leen euh, massawu parce que li ma wax jàppoon nañ ni dootu fi am tey boo seetee ba seet ba ci au plan mondial au plan international tey dañoo teg bët Sénégal ci li nga xam ne dañoo jàpp ni recul démocratique la ba ci plan international li ko firndeel mooy boo seetee dernier rapport département d'état américain bi ci euh, les droits et libertés soo liir rapport boobu di nga gis ni wax nañ ci li xewoon daaw ji ak signaux télé yi ñu coupé nga xam ne loolu réew mu mu commencé am rek mooy recul démocratique am na waaye tentative d'instaurer une dictature am na parce que ku bëgg a noot nit ñi rek da bañ ku wax wala ku leeral muy lu ñuy naqarlu di ko ñaawlu en tant que sénégalais euh, di wax tamit ni vous euh, avez tout notre soutien en tant que acteur politique en tant que citoyen sénégalais su ma waxee nag man ak ñi ma njaboote ñëpp la waaye mun naa ne vous avez le soutien de tout le Sénégal. tey amul Sénégal bi rafet bi amul tout le Sénégal Walfadjri a le soutien te gis nga loolu moo ëpp solo loo gis ci àdduna te oustaz wax na ko groupe boo xam ne am na identité am na personnalité ba pare mu leer ni li ngay def du te du tee bis boo ko delloowee signal bi mu nekkaat fi mu nekkoon defe naa saa yi defee lu mel ni da koy dooleel di ko firndeel mooy diggante démb ak tey ñëpp a ngi wax naan un million d'abonnés pour Walfadjri man dama naan cinq millions d'abonnés sax pour Walfadjri euh, parce que c'est la meilleure réponse ci yu nii la meilleure réponse bu peuple bi mën a andi ci yu nii wan nguur gi nit antu lii ngeen def mooy li bëri ci askan wala li ëpp ci askan bi ñëw abonné ci Walfadjri gën koo jox doole wane nii Euh, euh, euh, ligne bi mu nekkee nii peuple bi la fi taxawal te peuple bu seetaan ko néewal doole kon monsieur le président directeur général ñu ngi leen di masaw di leen encouragé ci taxawaay bi ngeen am ci réew mi Walfadjri groupe bu ñu war a la parce que xool ci ki ko sax ki ko taxawal ak li li tax li ko taxawal a jóg waaye xool ci yéen ñi nga xam ne ndaw ngeen mënoon ngeen nekk des fa ngeen nekkoon peut-être peut-être li ngeen fa amoon ci liggéey ak li ngeen fa mënoon am ci gain ci alal wala ci leneen leneen mënoon na ëpp fuuf parce que même ñun ñi sax du nga xam ne du ñu nitu presse xam nañ ni gérer un de presse au Sénégal la cay jafe-jafe moo ci ëpp la ca des mhm. ñëpp xam nañ ñi métti na ñëpp xam nañ ni moyens yi nee ne dina jafe ndax ni ñu organiser système bi pour war a mën a rek affaire bi presse bi surtout nag ki nga xam ne mënuñu fexe ba mu nekk ci seen waaw ba mu doxal li ñu bëgg ñu ñu doxalee ñëpp xam nañ jafe-jafe yi nekk ci groupe de presse man de nag yoruma groupe de waaye xam naa ni weer dina jot ngeen am jafe-jafe fay ay salaire loolu moom compléwu te xam naa ni li ñu waroon séddale ci alal réew muy euh, financement yi nga xam ne financement public lañu ñoo ko jox presse bi léeg-léeg ku ku ku doxul li ñu bëgg nga doxee doo ci jot wala li nga ci jot dina néew dina dem ba nit ñi sax annonceurs yi sax duñ la ñemee jox ay annonce parce que ragal nañ bu ko defee nguur daal seen muy lu jafe-jafe-jafe kon su ngeen bàyyee leneen ak leneen feneen ñëw ne da ngeen di relever défi bi bi nga xam ne seen waajur fa la ko bàyyi woon bu ko yóbbu fu gën a sori dañ leen waroon jàppale wala waaye waruñu leen essayer ñëwal doole yow ak ñi ngay liggéey ñëpp nag muy kilifa yi nga xam ne kilifa waajur lañ waaye agent yi fi nekk di liggéey kon ñu ngi leen di masawu wax leen ni vous avez le soutien et la reconnaissance des Sénégalais parce que man li ma gëmee ni politique ku ko def ni ko war a defee jaamu yàlla noonu laa gëmee ni média ku ko def ni ko war a defee jaamu yàlla loolu laa gëm kon euh, ñuy woo Sénégalais yëpp nag ñu nekk au côté de Walfadjri comme ils l'ont toujours fait à chaque fois que Walfadjri a traversé des épreuves comme ça tout le peuple sénégalais a été présent maay fàttaliku am na lu fi amoon mais nit ñi fu ne lañu fàtte koy ñëw fii jour boobu moom kenn xajuloon donc loolu wane na ni reconnaissance peuple bi moo ëpp solo lépp ñi def lii bu ñu sañoon démb caméra Sénégal yëpp micro Sénégal yëpp ñu ngi ko branché kees kenn waru wane feneen wala leneen ñoom loolu mooy seen loolooy seen bopp mais àdduna mënul doxee noonu àdduna mënul doxee noonu. rax si dolli mënuñu ne yi dafa wane lu mor ko ne ndax tey guerre sax Ukraine sax guerre bi nu mu tàng tàng ay journaliste nga fa di wane àdduna bi yëpp dafa xew ñun ñu nekk suñu biir réew lu mel noonu am te mënoon jur ci réew mu doy waar mais dafa jaadu wóor na ma su doon France vingt quatre fa nekk di ko couvrir kenn dagg signalam coow sax du am waaye complexe yi ñu am tey média sénégalais wane na ko ñu dal ci nag li ñuy ñaawlu la en di leen encouragé di leen massawu di woo sénégalais yëpp ñu jàppale Walfadjri ñu taxaw ci wetam ñu marqué la solidarité à Walfadjri parce que dañ koo jaay doole dañ koo bëgg a noot dañoo bëgg a tëj làmmiñam wala ñu fexe ba lu muy wax rek na jëm ci benn boor te fu mu am rek mooy génn nañ ci démocratie dugg nañ ci dictature kon loolu lañu bëggoon wax ci kàddu gàtt gàtt gàtt en tout cas di feddali suñu suñu solidarité di dellu rendre hommage à suñu kilifa yu ñëpp di El Hadj Seydou ci taxawaayam ci Sénégal léeg dara am nga gis ci réseaux sociaux yi ñëpp ne si Lamine Niass manqué fi. léegi dara am ñuy wax loolu amaana sëñ Cheikh du exactement le même style parce que dañ ko gis mu génn wax waaye au moins organe bi moom fa mu nekkoon mu ngi foofu ba léegi te loolu am na ci solo kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di bañ a guddal ci kàddu gi asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu di nuyu sëñ Cheikh Baara di ñoo ngi egsi waaye di gën a euh, rafetlu rek alaaji Oustaz ci fidélité am ci longévité am ak ci taxawaay bu rafet bi mu am ci télé bi ak seen collaborateur yëpp merci